waaw fii ñu nekk nag franchement parler lenn rek mooy suñu problème fii waaw wax dëgg yàlla mooy comme maanaam sécurité bi moo xaw a des tuuti rek waa sécurité bi moo xaw a des tuuti parce que des fois tam oto yi dañuy ñëw fi nga xam ne suñu clients yi fa nañ war a taxaw gaa def gaa def seen oto gaa yi dañuy ñëw taxaw fii suñu clients yi bu ñëwee du am fu nu gaare aussi tamit am na ñoo xam ne waa am na ñoo xam ne buñ ñëwee buñ bëggee jënd duñ am fuñ taxaw wala buñ taxawee waa mairie bi gars yi ñëw saboo leen ñu fay ba tax ba léegi daanaka suñu kaa yëpp doonoo daw parce que bu ñu ñëwee bëgg jënd bu ñu gisee fii xat wala bu ñu xalaatee espace bu ñuy taxaw duñ ko am dañuy dem waaw fii moom waa mairie ñoo ñu fi teg ñoo ñu fi teg te bu ñu fi teg avant Moustapha la quoi c'est la première maire maire fi nekkoon muy Mbacke Diop kooku tamit franchement parler bu jàmbaare la waaw ku nekk na ngeen di joxe place bu nekk cent cinquante mille ñu jox leen ñu leen ay autorisation de position wutal leen autorisation de voie publique ngeen di fay chaque fin de mois ngeen di fay OVP waa mairie boo ko defee mën ngeen a toog jàpp tranquille mu a liggéey mais franchement parle bi nga ko defee ba léegi amuñu fi benn problème ñu ngi toog di liggéey carrément ñu ngi dugg di liggéey carrément des fois kay lenn moo ñu sonal xanaa ñu bëgg a changer suñu baas yi gars yi ne du ngeen ko mën a changer du ngeen ko changer parce que su ngeen ko bëggee changer nii te seen mais fii ñu liggéey tam fii ñëpp ñu fi nekk yëpp ay responsable ay borom kër la parce que gis nga kii suñu grand la daanaka handicapé la mu ñu sax mais day toog di góor parce que mënul ñaan mënul lepp mënul yalwaan dafa toog jàpp ñaamuram di góorgóor di liggéey am lu muy suturloo kenn ku nekk fii yaa ngi si am looy suturloo di jox say njaboot parce que xëy rek am foo jëm rek loolu dafa neex waaw ba tax ne aussi tamit ñu dañuy ñaan dafa am mbéy mi nga xam ne moo remplacé Mbacke Diop moom it bi mu fi nekk ba léegi wax dëgg yàlla teguñu benn problème yàlla rek laay waxal teguñu benn problème jafe-jafe changé base bi daal la am suñu diggante ak moom te boobu ba léegi moom mënu ko accordé te aussi tam ñoo koy ñaan di appel gars yëpp pour mën a jàppale aussi parce que Kër Massar dafa doon dëkk boo xam ne léegi dafa bëri nit daanaka booy xool population bi yëpp léegi fii la nekk ñu toll ni Kër Massar war na am marché bu mag marché alizé boo xam ne état bi ñoo ko war a moom wala ñun ñu tabaxal ñu ko ñun commerçant waaw loolu moom dégg nañ ko dégg nañ ko wa mairie tamit franchement parle fanee passé am ben sen ben agent bu ñu fi yónnee woon ñu recensé ñu mais bi ñu recensé ba léegi après waatuñu waxaatuñu dara te boobu léegi ñu nit ñoo leen di déglu parce que point bi dégg na ko te point bi aussi booy seet yàggatul dara léegi mu ñew te boobu léegi tamit ñom waxuñu ñu dara motax ñu ngi lancer monsieur le maire affaire bobu nu mëna gaawé immédiatement mu xol ñu mëna a ñu tok mëna a waxtaan. ñu xool nan lañ ko war a mën a defee quoi parce que place yi ñu ay kayit dañoo ay kayit dañuy fay chaque fin de place yëpp kenn ku nekk na ngay fay OVP kenn ku nekk yaa ngi say carte fii te benn place bu nekk boo xoolee ay cinq personnes quatre person ñu ngi ci te ñoom ñëpp yaakaaroon fenn fu fii si place fi leen di suturé si leen yore suñuy waajur yi xam ne amuñu doole di leen si location di leen ci fajal seen soxla buñ feebaree ñoo leen di faj suñuy doom suñuy lépp ñoo leen di faj kon bokk monsieur le maire moom waroon na mën a gees parce ñun boobu ba léegi ñu nit ñu topp ci ginnaawam di ko jàppale di topp ci lu ko neex di ko jàppale kon moom moom it ñoo ngi koy ñaan di ko lancer appel mu ñëw jàppale ñu teg ñu loxo jëm ñu utal marché bu mag ñu war a mën a liggéey parce fii bu ñu fi yëkkatee te jox joxuñu ay place ñu xam fan lañ jëm te boobaa Sénégal dafay gën a bëri sommet rek boobaa fii dafay gën a bëri sommet kon boobaa aussi ñun dañuy gën a sonn te aussi ñoom it dañoo jug ne ne dañuy jug pour jàppale nit ñi pour jàppale jeunesse bi pour ba ñu jaar ci gaal yi kon si loolu lañ war a njëkk a taxaw ñu ñi nga xam dañuy góorgóorlu daan suñu doole jaariñ si gaal yi demuñu fenn dañoo war a jox suñu gëdd utal ñu marché bu baax ñu fa toog liggéey yor suñu njaboot jaamu yàlla normalement ñun loolu lañ ciy lancé quoi monsieur le maire pour mu ñëw jàppale. Euh, comme ni ko ñëpp di waxee rek mooy insalubrité bi ak aussi euh, bon oto yi nu ñuy gaaree fii n'importe comment euh, ak aussi tamit bon suñu tuyau suñu tuyau évacuation yi bon pratiquement bon day bouché xam nga à tout moment. bon vraiment aussi tamit bon à tout moment tamit dañuy jànkonteel ay problèmes yoo xamante ne mënoo ko nettali parce que boo dee xool à longueur de journée tafukat yi fi la ñuy yenn moo xam rek yooyu c'est des c'est yoo xam ne rek ñun vraiment bu ñu amoon ku ñu ci jàppale bon vraiment ñu jël quoi. ah mais bay say weewu tànk ñun mënuñoo dem feneen budul suñu suñu mairie parce que ñun feneen fu ñu dem tamit mooy dañoo jéggaani Kër Massar lañ nekk bon particulièrement ci xolu Kër Massar lañ nekk mooy ci entrée bi donc ñun keneen war ñoo mun a accompagner ku dul monsieur le maire donc ñun suñu appel bu ñu koy lancé en première ci moom lañ koy lancé. comme que dëkk bi moom à tout moment moom travaux day am. toujours rek dañuy tok di xaar rek parce que ñun bon euh, suñu niveau peut-être enquêté woon nañu ya je crois un an un an et demi de cela mais jusqu'à présent ñëwaatuñu pour wax ñu dara ñun suñu côté bi bon je sais pas nak comment ça va se passer mais pour l'instant ñun bon ñun dañuy tok di seetaan rek parce que ñun suñu secteur bi ñu dara donc man mënu ma avancer alors. deug rek la yalla bëgg ndimbal musul jóge ci état ñëw fi euh, premier premier premier vague ba mu